fi nga toll woon sax fi nga tollu woon sax continué woon fa mel ni moo gënaloon mbooloo mi moo gën ci nun waaye nag ah yow boo joxee ndigal ci dara def ga day am solo ñu ngi yëkkati ay kàddu yu gàtt laltaaye ku nuyoo boo xam ni yow lañ ci jiital ngir yàlla ak sa maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ngir yàlla ak sa maam Cheikh Tidiane Chérif li góor gi wax ni maaliyatil kawni si war rahmaani wa Moustapha wa Ahmad Tidiane ñett daal laa am mooy sama richesse ci kaw suuf mooy yàlla mi borom bi ak yonent bi ak cheikh kon tabaarakallaahu ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la. wàcc sa wàccuwaay bu kawe bi di kilifa yu tedd yi nga tudd sëriñ Souleymane a ngi nii dégg nga li mu wax muy produit wu sëriñ Cheikh yàlla boole nu ba nu nekkee ci daayir yi moo ca manoon ndax booba yàlla ne woon na ko gan te nëbbu ko bu ñu nee cotisation mu ne cotiseel naa ñëpp bu ñu nee dem Tivaouane mu ni jël naa oto fayal ñëpp këram nekk siège social ñu fay daje mu cay daj lu ne looloo tax yàlla sédde ko doomam ji muy kër mii waaye yow tamit sang nga ndax bu ko nawoon nga xeeb ko wàññi nga ab cëram arab bi nag daf ne la taxqiranna saxiran fi muxaasamatin innal baudata tudd mi muqulatal asadi nee na bàyyi leen xeeb ko tuuti bari na bëtub gaynde buy nàcc aw yoo ko ca matt waaw <laughs> eh, tabaarakallaahu di nuyu Pape Kassé moomu ci sa wet léegi la kon nit ku yiw a gaaw a bég lii xale yi wax rek ni ko kaa joxe kado du nelaw tey ndax bég nit ku yiw a gaaw bég ku yiw a di du bég mukk e di nuyu tabaarakallaahu Babacar wax nañ ci waajuram léegi sëriñ Cheikh nag nee na birig boo gis mu jub moolukaay ga moo norul birig boo gis mu jub moolukaay ga moo norul moo tax lii shérif doon jàngale te mu rëy lool lu lu guy rëy rëy gi fay ndeyam góor gi dani doom ji kaay jàppale ma saaku ceeb bi nu yëkkati ko doom ji ñëw ak doore ci ni tas koteem yëkkati baay bi ni cas koteem day sànni groupe sukk mu ne ko bàyyi yëkkatil mu ne ko maa yëkkati foofu maa yëkkati foofu ndax bu dul woon man rekk du doon yow kon Babacar mbaax gi nga baax ba tax bu lii jotee ñépp ñëw yenn yàlla lafal la cat cat nag nit dina am alal ba yàgg alal ja yàqu ñu ne cata ko topp nit dina siiw ba yàgg kenn tuddatu ko ñu ne cata ko topp bien que loolu cat la mais cat dëgg dëgg dëgg mooy di bëgg lu baax ba yàgg lu bon gënal la lu baax te day dal nit kon nag tabaarakallaahu kóllëre googu la ñu seq yow koo àndal rendre nga ko service ah tabaarakallaahu di nuyu Ousmane suñu lépp Ousmane Lo yàgg nañu lool mu am ay qualité lool neex a àndal lool neex a nekkal Serigne Cheikh nee na xarit pire amatul complice am. xarit piir bari na ku la ni foo dee ma dee fa te booy dee muy daw xarit piir amatul complice mooy koo xam ni dangaa toll ci defuk caay caay di wut ki niroog yow ngeen ànd la ngeen di def bu yàqoo mbir ma yàqu mu nekk ko ku exceptionnel yal na ko yàlla jàppale monsieur le maire ñu ngi lay nuyu ndax yéen itam li sëriñ Cheikh naan doomu daara yi ñuy dénk pouvoir administratif ay religieux laïque lañu lu xew ngeen ñëw teew te yéen yéen yéenay doomu bàjjenu nit ñi bu ndox nangoo kër ñu ni meer bu dépense amul ñu ni meer waaw meer moom xanaa moom dañu koo jox budget du monde ba lu ne mu mën ko lu ne ñu ñu jiñ ko ko ndeysaan mu ni sëmm rek moo tax bàkkaar yi nit ñi da ngeen ko mujj yenu Euh, wala boog seen seen bàkkaar yi nit ñi dañ koy mujj yenu si daa ji Malick nee na boo yenoo mat yenoo mat te koo romb mu rocc mat lee nga woyof lee nga woyof yal na defal leen jàmm di nuyu imaam yi ñoom laa waroon jëkk a tudd di nuyu tabaarakallaahu tàggkat yonent bi yéen ñëpp ndax comme yàlla dogal na yéen ñëpp a ngi fi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp dinaa revenir tuuti ci shérif nag bërk démb sama man man bariwul ah dégguma ko bopp ndax nee nañu nit ñi moom kenn ku ne julli juróom nga bu ñu la biralul yelu la mu bariwul lu may dégg ñu may def ay critique ci réseaux sociaux yi xëy na nag comme duma xool commentaire xonxoneer yëgul xetam sama doom ni ma da nga demoon kër Cheikh Ibrahima Aïdara ma ne ko waaw mun ma da nga fa doon def témoignage ma ne ko waaw mun ma ku ñuy wax diw parce que papa dafay dugg ci internet bi de wax na la nangam wax la nangam wax la nangam ma ne ko diw ma nu mu tudd mu wax ma tur wi man ko dëgg xom ko waaye ndok mbir boo ca nekkee te jaralu la ñu wax la ci yenn yi jaru moom nag ku am njariñ la dafay partager dara jaam di partager ay moyen di partager xam-xamam gis nga bu super yi daje oto super yi bu ñu dajee super ba ca yées mooy ba nga xam ni du la yóbbu du la yekkale du la yóbbu la yekkale léeg-léeg nga daje ca koo xam ni di nga tiit bu yàlla daje dogalul nga dajee keneen kuy safaanam su dund xajam xam nga tata yi nga gis nii boo ci duggee te amoo place boo jafandoo nu tafu la te boo jafanduwul daan benn waaye dafa dugg ci tata bi ba yàgg mu ni eh daan ne ah ñi jàng manti xam nañ ni ñaari réaction yi bokkut dañu tegg loxo bi ci poche poche droite bi ni eh daw ci su gauche bi nii ah kooku ba léegi nag gis naa ngay joxe rek dégg naa sëriñ Touba nee na lii tax am alal ku ko wax kuy dajale mu mere la lii tax am alal nee na ku ko wax kuy dajale mu mere la mooy joxe joxe xeex ñoo yem loo ci waaj doo ko def même kii xeex ki nga dagg saagaw ndey mu naan téyel ma sama mbubb ak tàppet la ku war a dee loo doyeeti mbubb ina la fay la yow shérif day partagé ci yooyu sëriñ siitam dafa am jàngoro joo xam ni taalibe la daan dal ñu di ko yóbbu ci sëriñ sëriñ ba di ko orienté ba mu jàngoro ja wér jàngoro jan siis fiir rëy iñaan soxor jàngoroy taalibe la woon démb taalibe bu mu dal ñu yóbbu la ci sëriñ sëriñ ba faj la léegi nag jàngoro sëriñ la feebar nag bu tàmbalee ci hôpital jëm ci kër ya du neex a faj feebar bu tàmbalee ca hôpital yi jëm ca kër yi du neex a faj jàngoro ji jàngoroy taalibe la woon ñu leen di yóbbu ci sëriñ si sëriñ si leen faj léegi jàngoroy sëriñ la ku leen di faj wa xayru taqiyin yamuru naasa bi tuqaa tabibun yu daawi naasa wa huwa alilu wa ragaloo yàlla ba pare ya yamuru naasa bi tuqaa bëgg a jàngal nit ñi ragal yàlla xam nga noomeel tabibun yu daawi naasa docteur buy consulter malade yi wa wa wa alilu ah, te fekk ma ngay wonk rek ndax wérul loolu nag moo nekk ci moom loolu lañ ci xam moom xam na ci dara waxuma ko pour publicité parce que ku ne xam na ni moom tukkikat la du toog mais ñun tamit yàlla nattoon nañu tukki maag Ousmane Lo mais def naa deux mois États-Unis le 22 juillet ba le 22 septembre maa ngi États-Unis li ma dajeek ay njabootam ñu defal ma ay teraanga yoo xam ni moo leen ko wax ndax bu leen ko waxul woon du ñu ko def te taalibe yi ku ñu gis ci biti bala ñuy jëf jëflante yow dara danañu woo sëriñ ba ni ko diwa ngi fi gannaaw diwa ngi fi jooja nag lu xew gannaaw baat boobu te sëriñ ba la jóge ma li ma leen xam naa ko defuma waaw bala ñoo jëflanteeg yow dara dinañu woote ni sëriñ bi diw a ngi fi ginnaaw a ngi fi jooju nag loo gis mu xew te sëriñ ba la jóge ma jóge fa le 22 ñëw ñëw fii la 4 muy deux semaine ma dem Paris deux semaine laa fa def lu mu gàtt gàtt gàtt ay njabootam fekk nañ ma fa ma nekkoon te sarcel ak ay teraanga am na ñoo xam ne sax xamu leen waaye dañu koo sopp soppeel cofeel goo xam ne moo tax sax ñu xañtu ba fekk ma fa ma nekk bés mu ne ma wax ko ngeen may ma tuuti rek gis nga nit ñi nañu teey waaw waaw waaw nuyu nañ nuyu nañu leen eh, damay damay damay nuyoo di lim Cheikh Ahmed ba ni ma te ngaa nuyu ñaari nit noppalu ma ne ko kan kan mu ni ma ñi fi dikk ak ñi fi dëkk ku bokkul ci ñooñu nag nga baal ma àq ñi fi dikk ak ñi fi dëkk su ko defee nag wax Chérif barki démb ndeysaan xaw naa ko yërëm ndax ma dama ko suivre mu ni man damay dem ba am problème damay dem ba am problème wax. mais gis nga nii foog nga wax parce que nit ñi loo yor ñu xëccoo ko yow te boo ko bàyyee ak ñoom ñu wàcc ko loo jàpp ñu xëccoo ko yow te boo ko bàyyee ak ñoom ñu wàcc ko waaw nit ñi lan lañ bëgg sëriñ dañu daan wax ni sëriñ bi dafa war a mel noo xam ni dëppoo la li yàlla wax ak yeneen bi taalibe yi di ko roy waaw sëriñ boo xam ne taalibe du la roy ñemewu ko bu la royee ngeen def maa def moroom day incarné ak cëriñ day incarné daraja te yow ñu war laa roy nga war a weex tàll ñu roy la li ngay def ñu jëfe ko mais ku la roy nga ne def may defu ci ah ak di la xeex boo nee yàcc ñu xeeb la boo taxawee temm ñu xeex la boo nee yàcc ñu xeeb la boo taxawee temm ñu xeex la barke démb benn sëriñ dafa dugg ci réseaux sociaux yi jàpp benn taalibe di ko démonter pierre par yokk ko lu ne ma ni nag ganaar a gën a ragal ci lu yàlla bind waaye boo naree jàpp cuujam mu song la taalibe ba dem ci réseaux sociaux yi daandi sëriñ bi dégg naa li nga wax lépp waaye man de benn baat bu ñaaw duma la ko wax lu ma la nar a wax rek dinaa la ko wax ci samam xel moo saay saay loolu nag sëriñ waru ca mën a àgg Serigne Cheikh Tidiane si nee na Serigne Babacar Sy daf ñoo woo ba ñu ñëw mu ne mbaa taalibe yi dagge fu nekk ñëw ci kër gi nawloon te ngeen ak ñoom te bañ leen def ay jaam Serigne Cheikh nee na ma ne ko déedéet defuñu leen ay jaam de mu ni bis bu ngeen leen defee ay jaam te bañ leen a def ay nawle la cay mujj mooy ngeen di kur fañante ci mbedd yi. Serigne Abdou Al Amin taxaw na fii wax ay njabootam ni leen yéen du ngeen am ay taaliba ay collaborateur ngeen di am ñaata yoon la ko wax su ko defee nag ceel li mag du ay nelawam njàddir yi ngeen di dégg ñuy waxi toj toj ci télévision yi wax wax yu rëy yi noo leen gën a pànk dàq leen ko gën a xam li ñuy wax waaye nag lu la raayante mayul wokkante du la ko may rayante du la ko may lu la raayante mayul rayante du la ko may mm-hmm. waaye nit ñi dañuy wax rek dañuy wax rek dañuy wax rek dañuy wax rek ñoom daal tànn nañu loolu jëf moom dara te wax ji kat dara rafetu ci yàq si nit loolu sëriñ Moussa Kanaan jaamu leen yàlla te baleen baloon tey àq te bàyyi gaa yu baax yi ngeen di yàq ku yàlla jiital ku ko jiital jiitu ku ko desal ginnaaw des ginnaaw far juutu yàq rekk wax rekk bu ñaar àndee ngay araw di araw di araw ba teqali leen ah. wax ju sew wax ju ñaaw waaw kon xanaa góor góorlu kon jaratu ko boo dee def ay effort ñu teg la baat kompaloo la hmm? kon tabaarakallaahu shérif e, wax jooja gannaaw bi sax dem naa bay bëgg tontu waaye ma waxtaan sama benn conseiller mu ni ma ndax xam nga waa ji bu baax ma ne ko taxul ma miin ko mu ne ma ab juróomee la yaayam ah. ma ne kon de démb tontul na ma kon démb tontul na ma bu dee wàll yi di wàll yu ñàkk xorom wàll yi boo xam ne ab juróomee la sa yaay kon nag tabaarakallaahu shérif ah bu ñu dajeeg yow te xam li yàlla def ci yow dañu lay bàyyi nga wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa toog bés dafa toog bés ni ñëw leen ñu diisoo ci wàllu yàlla ñu ni ko yow ki yàlla yónni turu yàlla wi nga xam ni moom la ñépp di wut loo ci ñaan yàlla mu nangu fu mu ne xam naa ko mel ne sëñ Souleymane mi nga xam ne ci la yëngu moo ko laaj lu mel noonu turu yàlla wi nga xam ne loo ci ñaan yàlla mu nangu ñëpp di ko war fu mu ne yonent bi ci mbaaxam ak yéwénam ak yéene ñëpp jàmm mun leen seet leen ko ci ñetti saar ñu ne ko ban ak ban mu ne seet leen ko wala suratu ali imran wala suratu ñu ni ko bu dee suratul fan lay war a toll mu ni seet leen ko ci allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum ci diggante boobu ñu ne ko bu dee suuratu Ali Imran fu mu war a toll mu ni seet leen ko ci alif laam miim allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayyum ñu ne ko bu dee ci suuratu Taaha fan la war a toll mu ni waa anit seet leen ko ci waa anatil wujuhu lil xayyil qayyum ñu ne ko kon alxayul qayyum la <laughs> ah? parce que ñetti ñetti versets yi nga cité yëpp baat bee ngi ci waaw mu ni wax ah, kay moom la dañ ne ana Aïcha mu ne ko waaw mu ne ko indil ma écritoire ma bindal leen ci loo xam ni moo gën àdduna ak li ci biir ñu jox ko mu ni bindal yaa yaa xayyu yaa qayyuumu bi rahmatika astaxiisu laa takilnii ilaa nafsi tarfata aynin waslix li shani kullahu loolu li muy tekki mooy yaa xayyu yow aji dund ji te fàccewoo ci luy dund yaa xayyumu yow saxaakoon bi sax dàq di saxal lu ne bi rahmatika ci sa yërmande astaxiisu laay sàkku xettal laa takki nii ilaa nafsi bul ma bàyyi ak sama bopp tarfata ay nin lu toll ni catu bët waslix lii sha'ni kullahu defaral sama mbir yépp Seydaa ji Maalik mu mus ma te te xam lu ne ni ko cas fa fa yaa xayyu yaa qayyuumu yàllaahu rabbana ñu def ne day ñaani kaat kaat ne quittez pas dinaa la soxla Siraaji Malik Chérif moo tax gis nga tey ngeen a teey man day gisuma lu jar ñeetaane ak a fërfëri ak a gisuma ko de ndax Siraaji Malik ba mu ko nee cas ni fa yaa xay yaa yaa xayu yaa qayyuum yàllaahu rabbana yàlla ni ko loo bëgg waxal say doléance booba ñëpp nga defee ni def naan taale bu yami 4-4 taale bu yor ay château taale bu yor ay milliards mu ni déedéet fa yaa xayu yaa qayumu yàlla rabbana xam nga lu ma bëgg ilayka tawassalna bi xayril bariyati maa ngi nii sàkkoo agsi ci yow maag ku ma àndal jaare ko ci ngeen di mbindeef xam nga lu nu bëgg ci moom wa shafi'ahu fii naa yàlla na nga def mu ramunu fi liqaayi ca randiwu ba waa wa lu naa ndax nun ñi ñëpp kat si wal xib bi ku dul soppe boobu maw suufun bi rox bin war a hëbati dina tiit ba muy ñaan loolu gisoon na kat-kat yi gisoon na milliards yi gisoon na lépp lu tax mu wàcc ko fa lan moo tax mu wàcc ko fa su fekkee nag nun àdduna rek a nuy ak alal nan bàyyi salaatul faatix te dem bu dee àdduna rek a nuy ak alal ak i milliards nan fi bàyyi salaatul faatix te dem parce que ñu nu yàlla booreel ba ñu ñaan gisoon nañ ko te ñaanuñ ko kon nag yonent bi ci yaatoom ak mbaaxam yaatu dënnam moo tax mu joxe loo xam ni moo gën àdduna ak li ci biir jox ko ay njabootam réservé wul dara Seydi ji Malick nit mi nga xam ni itam tabaarakallaahu te kat euh, shérif bi muy bi muy commencé falaa budda nee na dama tëdd ba guddi ma gis ne nit ñi yaakaar nañu ma ci xam-xam te xaw ma dara ñu yaakaar ma ci am am te aw dara ma ne ñokkat ni tey moom poñe yàlla rek moom la sëriñ Cheikh doon nettali nee na dafa am benn xale bu ma ni wax ji Alaaji Maalik wax ni damaa poñe yàlla sama ndijaay nee na d'accordu ci sëriñ Cheikh ni ko sa ndijaay nag tuuti na pour mu gàgganti Maodo ndax Maodo maftuhu alayhi rek te sa ndijaay ferul ijji Seraaji Maalik poñe yàlla te boo dégloo woyu xam ne da koo poñe ndax nee nañu bi mu nee bërët Cheikh feeñu na ko ni ko loo bëgg mu ne ko may ma yonent bi feeñu na ko ni ko loo bëgg mu ne ko déedéet bi yoon daal may ma man daal falaa budda min shakwa ila lay kurbati directement ci sama borom di wax tudd yonent bi de waaye lamp yi clignoté ko xamal ne du jàll de du man a dem de wax ji neex na lool sell na waaye récépissé bi fokk nga jël ko ci yonent bi door a jàll ba mu demee ba gis ni nag agsi na ci bunt bi mais caabi ja bàyyi na ko gannaaw ñu mu ne anamu ñu ne ko ma nga ca kee xayrul bariyati foofu la tàmbalee tudd yonent bi de ba ba muy agsi foofu tudd ko ma daal di nag fa yaa xayu yaa qayyumu yàllaahu rabbana kon nag comme noonu la ilayka tawassalna bi xayril bariyati mu jox ma caabi ji wa shafiu fiina fi liqaayi wa kullu naasi walx bi mawsuufin bi ruxbin wa rahabati hmm? kon nag shérif loolu dama ko doon introduire rek waaye yow kenn warul nekk ci sa jotaay di wax dara sama janq bee muy naar dañu ne woyu jabar jëkkër jaay dëbbe koy aw door a aw woyu jabar jëkkër jaay dëbbe kuy aw door a aw waaye dafa mel ni kër dëbbe na comme bu ma jëlee sama jarbaat may ko a ah, bala mu koy gërëm moom moom mu gërëm ko te gërëm na ko gërëm na ko gërëm ki ko yàlla booleel ñaari soxna yu ànd jubboo àjjana la àjjana la àjjanay biti la yàlla yàlla jàppale leen sama soxna seet muy naf fay muy soxna Ousmane ah su ma ko gërëmul rek eh, ndeysaan bu ma demee kër ga mën naa am am problème benn waaye nee na dafa dégg ñuy wax problème mu ñaari jabar ñaari jabar te ñaari jabar ak bëre ñoo yem da boole bëre ñaari man ngay boole da ngay boole wuta daan ak moytoo daanu waa ji nee na bi ma déggee problème mu ñaari jabar ma ni ah néegal ma takk ñaareel mu ni booba nag damaa defoon ni bu ma ko takkee ak till doon gu nekk ci diggante ñaari bëy fu ma weex fu ma gestoo rek xàmp waaye bi ma duggee ba ci biir laa yëg ni ndekete bëy wane ci diggante ñaari till laa na nag ma ne ah lii de doy na waar nee na kenn ku nekk dama laa jox sa guddi waaye guddi gu ne miim laay fanaane nee na ma xam ne lii du taxawuwaay naa wut ñetteel nee na ba ma wutee ñetteel aaw ba kolaabu rek moom di xeex ñaareel bi phénomène boobu jigéen ñëpp xam nañ ko kon tabaarakallaahu sunu ñaari soxna yooyu nag nga xam ne ñu baax lañu ñu jàppale Babacar lañu ba mu tal lii ndax wóor na ma ne bu ñu ko fitnaaloon du tala tànt mukk du tala tànt kon Chérif maa ngi jéggalu ci kàddu yu guddi yi ah yow sa jotaay ñeme naa wax ndax xam naa ni lu la déranger waaw waaw tey tamit wax dëgg yàlla internet bi kenn du gis waxtaanu shérif ba mu jeex te ma mais loolu dama la koy sante ndax boo doon calculer nii boo ma tuddee fenn man naa dem ba jur nit bëgg ma ci loolu ba bu ma nuyoo bàyyi sama loxo junni boo doon calculer loolu doo ko def loolu mooy partagé bu muy partagé darajaam jaam di partagé ay moyens di partagé xam-xamam loolu moo tax buy wax bu ma fa ñëwee bu ma joxee kàddu danaa exprimer wu pour wax am na ñoo xam ne bu ñu toogoon ngay wax dañuy bësu di di mel ni kuy matu mbër yàkkamti nga teg teg waaye moom day partagé dara jaam di partagé ay moyen di partagé xam-xamam yal na yàlla jàppale la Souleymane tabaarakallaa yal na yàlla dolli tawféex kon nag Chérif a ngoog moom yàgg nañu li Ousmane wax engagé na ma waaw ijaaza bi Ousmane di wax defal na ma ijaaza avant ma Serigne Cheikh defal ijaaza moom defal na ma ijaaza moom Chérif Ibrahima mii kon nag loolu yi tamit nañ ci bàyyi xel kóllëre yooyu nag dañu koy sàmm Siraaji Malik moo bind ci taaya bi yaa saaxibal ahdi raaci al ahda inna lahu la saailan gayru mawsuufin bi xaflaati ifaa u ahdin wa nadrin kaana qaidatan qawiyatan inda arbaabil balagaati ca taaiya ba kon nag kóllëre dañu koy sàmm yal na yàlla barkeel yàlla barkeel maa ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu euh, ndax euh, jamono ji tey toll na tey fi nga xam ne lii suñ ko amulee dina yàq lu bari bëri bari bëri donc euh, imaam Chérif ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen fi yàlla yàggal Eh, lépp liñ fi ñaan tamit yàlla na ko yàlla nangu si daraje rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di gërëm aussi waa koñ bi ak ñëpp ñi nga xam ne eh, ñu ngi fi teew eh, ñun nag suñu kàddu du mën a sori du mën a sori ay ñaan rek la ñu bëgg a nga ñaanal ñu ñaanal quartier bi ñaanal commune bi ñaanal senegal ndax jàmm am fi ndax su jàmm amee rek yaakaar naa lépp. xaj na fii Diack yow tamit maa ngi lay remercier bu baax a baax c'est vrai que fu sori laa jóge nii sonn na trop mais comme euh, dama promettoon ne dinaa ñëw euh, moo tax ma ñëw su doon sama sago nag dama fi toog ba mbir mi jeex mais nag euh, maa ngi si jégalu bu baax a baax Chérif jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah un bal saqaun inaatu wa wa hilmun wa sabrun innahu mutawaadiu ana soppey cheikhu tidiane sirif sëñ babacar nee na wa afun wa isaarun afaafun siyaanatun wa saayun xanaanun waxtimaalan yutaabiu sëñ babacar nee na loo adabun bal najdatun wa shajaatun futuwatu woo xaqan uluwan yuraafiu sëñ babacar nee na fa baxru tiyaaqi qad tamam wa jaqaru ayaa munqidan inni xariqun wa faasixu sëñ Babacar nee na cheikhu Tijaani bahrun tamawaja qaaru wa yufiidu min izni muhaymini baaril akwaani yéen xam ngeen kan mooy Serigne Babacar mooy borom bone kaare bi Serigne Babacar mooy borom manto bi ana soppi Serigne Babacar mooy borom ayka bi Serigne Babacar marabout de tous les dangers Serigne Babacar marabout de tous les temps Serigne Babacar il est le marabout le plus élégant le plus éloquent le plus intelligent le plus strict de tous les marabouts du Sénégal mooy borom tek reg raj def li ni ñu màggal Serigne Babacar Serigne Babacar si oh, Eh, ana kan moo fi yaakaar Seydi Aboubacar Sëñ fa salaatu bi salaami daamat ala ayni naimi wa seydi la ayaani ayini alhamdulillahi hada cheikhu raba ho xayrul wujudillah si alaahu صدق